to conceal. léegi saa yoo waxee yaa ngi évoqué li nga xamante ne moom mooy euh, séparation pouvoir gis nañ fi ñu def dialogue pendant trois jours ba quatre jours di euh, def li nga xamante ne mooy assise à la justice daal di fay woo képp koo xamante ne justice ñor na la ngeen daal di waxtaan mais ci loolu le ba tey gisaguñu benn benn benn décret wala benn information boo xamante ne mu ngi wëna ni li nga xamante ne moom mooy pouvoir judiciaire ak pouvoir bi nga xamante ne moom mooy euh, exécutif bi séparé wu na

tey jii fi mu toll nii loolu moo waral suñu bataay loolu lépp dafa am lu ñu ci jàngatee en tant que opposition engagée ñu ne lii bëgg nañ Sénégal tege ci kaw yoon ci dëgg dëgg alalu yàlla la tey jii bu dëgg amee rek lépp baax ñàkk tege ci dëgg moo waral séddale bi baaxul tey jii ñàkk tege ci dëgg moo waral tey jii lii ñuy wax ne cumul de fonction day dañ ndax yow boo nekkee miss nekk maire tey jii nga yore santé li ma leer mooy commune ba nga yore moom dina fees dal ak commune ba nga yor dina fees dala ki ay ay ay ay ay ay ay extra extra nga dem ci wàllu assainissement am na fi dëkk yoo xam ne seen tey kenn xamu leen woon mais ba seen doom faloo nekk maire nekk ministre tey ji boo fa demee comme palais rupture foofu lañ ko war a xaar foofu la ñu war a defaree rupture tey ji ñaata ministre yi ñoo xam ne bu fekkee ne am na programme boo xam ne ñun dañ koy yàgg xeex man d'accorduma ci ñoo xam ne dañuy def cumul de fonction benn nit nekk ministre nekk maire nekk leneen nekk leneen lekk ne leen loolu day sooxeel li nga xamante ne tey muy liggéey bi day sooxeel li nga xamante ne tey muy réew mi. rupture da ngay ñëw ci l'essentiel li nga xamante ne tey moom la sénégalais yi xaar pardon dama ne moom la sénégalais yi xaar nga dem ci loolu créé wuñ ko créé wuñ ko loolu yàgg nañ koo xeex tey jii boo gisee. déggatoo ma ne dégg ma ne xam nga déggatoo ay syndicaliste ñoom jëfe jëfe dama ne xam nga déggatoo ay syndicaliste loolu loolu xanaa attends loolu moom acte bu acte bu baax la moom xanaa dañ koy moo tax ma indi ko xeex bi li ñuy xaar ñun li ñuy xaar ñun mm. mooy séparation de pouvoir am loolu mooy séparation de pouvoir mais nga nekk maire nekk député nekk lépp di buur di bumbi loolu dafa war a jeex ci réew mi yow en tant que koo xamee seen tey yow yaay chef de l'état tey yaa ñu yilif ñun ñëpp mais loolu mais déglu ma rek yaa ñu yilif soxna si bu fekkee ne tey ji yaa ñu yilif ñun ñëpp sa wéyjur feebar fële am koo xam ne mi ngi ci kii bi nekk nekk en commun nga ne nañ ko génne faj sama yaay ndax boppam day metti yooyu dafa war a jeex ci Sénégal

yàlla dogal na indi nañu ay parité jigéen góor et cetera et tey ñu ne kat ki nga xam ne tey moo nekk tête de liste Macky Sall ko fi indi mu leer na yow mii tey bu ñu la defee tête de ci collectivité local ëllëg kii mooy doon suñu maire te lim fi fekkoon mooy dañuy fal ba pare te duñ xam kan mooy suñu maire bu ñu paree ñu soog a ñoom gisante ci seen biir fal maire état noonu lay doxee. te pourtant Macky bi nga xam ne tey Ablaye Wade mi ngi fi loolu mi ngi fi woon mais est dégg nga fenn foo xam ne tey Macky Sall taxaw naan def naa lii defal ñu gis ñoom ñoo doon wax na tey jii dañoo soxla réew mi jox nañ leen réew mi nañ def ñu gis. wax ji dafa war a jeex mais gis nga ni Sonko démissionné na mairie bu géej bu bu. non yooyu yooyu du actualité. xam nga dama ne déglu ma soxna soxna si xoolal waaw dama ne xoolal non loolu. loolu loolu wax naa ko. xam nga Birame Souleye mi bi ñu ko nee démissionné dafa bañoon. Hmm, dafa bañoon. dafa bañoon. mais au finish def na ko. d'accord loolu dama laa wan ne tey jii fi mu toll nii non dama laa wan ne ku aaye wal sa moomee mais bul wal loo moomut état hmm. ñun dañoo d'accord ne suñu kilifa Bassirou Diomaye Faye la mais assemblée bi ñu jëm moom sénégalais ko moom moom li mu moom mooy état bi loolu it aussi ñun ci la ñuy woo sénégalais am amuñu droit woo ci sénégalais yi. dañuy woo sénégalais yi ñu woteel opposition bi mu am doole fi nga xam ne tey mooy assemblée nationale ñu indi fi ñu jële fi li nga xam ne tey mooy séparation mooy mooy kidnappé affaire buur. kon yéen boo leen amoon ñoom dañ koo yàgg a xeex te pratiqué wuñ ko. boo dégloo woon seen communication. Mm. dañ ne Macky sàll buur la. taxaw nañ fii sax ne reconnaître ñu ne Macky Sall président loolu ko gën a garaaw ci réew amut te pourtant Macky da koo muñoon taxaw nañ fii ne président mii la. gis nga fi mu toll nii ku njaboote da ngaa war a muñ. Hmm. ku njaboote da ngaa war a yaatal ku njaboote da ngaa war a uuf ñëpp. Hmm. ñëw di impliqué loo xamante ne leer na affaire buur la loolu dafa war a jeex ci Sénégal. Hmm. lii régler situation bi nag lenn képp la ñoo ngi jëm ci ensemble maanaam législatif. législatif yooyu sénégalais la ñuy woo ne nañu votel opposition bi ñu am majorité ensemble bu boobaa. seeni kàddu lañ leen di yoral. mais day fekk aussi opposition bi wane li nga xamante day tax ñoom ñu ñu ñu ne parce que les hommes politiques la la plupart d'entre eux seen bopp lañ fi nekkal da ngay wax wax wax ba ñu jox la nguur nga dem. assemblée non non xam nga loolu musta am ci soxna si xam naa ne sa sa gëstu dafa soriwul waaye dama ne loolu musta am ci Sénégal. non non non pardon dama ne. c'est dama ne assemblée nationale. am na am na député yoo xam am na député yoo xamante gox euh, non. j'en connais des députés yoo xamante soxna si seen gox non bala ngaa xam sa àjjana da ngay faatu waaye taxaw fii di wax dama ne li nga wax ni da wu dama ne la dama ni la sama sama xalaat laay indi dama lay wax dama lay expliquer dooma dooma may ma wax la waxuma ni forcément loolooy am dama ni la am na si ay député yoo xamante ne bu weesoo dem toog ca salle ba bu ñu waxee ñu yëkkati loo amul amul ñu njëriñ askan wi loolu laa wax na ñun soxlawuñu loolu parce que la loi dama lay tuuti soxna si que loi d'amnistie euh, soxna si loi d'amnistie soxna si dama la bëgg wa deglu ma rek Seyna mag yow bokk wax gis nga li nga wax ni je suis parfaitement d'accord avec toi mais dama ko bëgg a ba ñi ñuy déglu xam li ngay jublo wax ak li nga may laaj lan la dama ne mag yow d'accord nañ ci li nga wax amna fi député bu fi nekkon lu ma man député Macky Sall man lool dama ko dax wuñu loolu voilà député Sonko la député ah. Macky Sall loolu jiitaloon nak say wax dañoo soxlawut loolu li ñu soxla moy rupture ci assemblée nationale bu ah. amé rek régler lépp xam nga tey jii buñ ne camion bi dafa paan fi hmm. ñu ne camion bi lu mu ay pneu ñu ne dedet lu mu ñu ne dedet lan la paan ñu ne moteur. Hmm. buñ ñu bëggee oto bi dem fu ñu réparer moteur bi moteur bi nag tey jii mooy assemblée nationale. nañu fexe huile di dem ndox di dem essence di dem lépp di air di dem bu boobaa camion bi bu bëggoon a fanaani fuuta mën naa fanaani fuuta hmm. waaye fu waa ji sifflé mu taxaw loolu dina yeexal aw yoon ñun dal li ñu bëgg mooy ensemble national tey jii mu dugg ci loxoy opposition bi ñu changer politique gu Sénégal ndax boo xoolee tey jii ay deuxième mandat troisième manda kii falo na yow bu sa waay falo ngay am muuraaki bu folle koo nga daal di toog loolu dafa war a jeex ci Sénégal loolu nag li ko mën a jeexal mooy tey jii kenn ku ne yem ci sa keppaar keppaar googu nag tey jii sénégalais lañ ciy xaar tàllal leen loxo ñu woteel li nga xam ne tey opposition bi ñu wax nag di ñaax opposition bi nañ fàtte seen bopp te dem ci sénégalais yi mooy comme li nga wax nii mm. nañu fàtte seen te dem ci sénégalais yi sonn ñun. waaw nit ñi dañoo sonn. sonn coono bi moo waral tey ji ñun ñu jóg maanaam tey bu laajee communiqué comme ni ñu ko defee nii dañ koy communiqué bu laajee acte dañuy wàcc def acte. Mm. extra dutuñu leen bàyyee affaire bi saalam yaay nder. duñ leen bàyyee dara. zéro virgule duñu leen ko bàyyee l'essentiel ñoo ngi ci terrain bi ku ñu war a yee des na la yee ku ñu war a seet des na la seeti xamal leen ne tey ji Sénégal gii. Mm. buñ bëggee mu jag mm. na séparation de pouvoir am. d'accord kenn ku ne yem ca la nga war a yor mu jeex. D'accord, donc... Bah. Euh,